bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di yëkkati sunuy kàddu ci ndigal ndigalul sunu sëriñ sëriñ Abdul Karim moom Cheikh Amadou Fadil xam naa ne li sëñ Tuubaa seen wax wax ji mat na lool wax di yàlla waaye sëriñ bi jataay bi dafa màndargaal lu rëy mooy li sëriñ Touba radiyallahu anhu waxoon ne maamam xol yi maamam xol yi loolu la màndargaal booba ci atum 1926 bi nga xamee ne sëriñ Touba doon na laaj boppu taalibe bu nekk ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu dajale ko ba noppi ba mu ne képp ku joxewuloon doy na tubaab bi dafa ñëw yónnee ndaw ci moom tubaab bi agsi woon ci moom ne ko dama laa bëgg laaj ñetti laaj yoo xam ne bëgguma ci dégg lu ma naqari entreprise bi sëriñ bi ne ko lu mu wax mu wax ko mu ne ko nee ko du ci dégg lu dul dégg tubaab bi ne ko kon tàmbali naa naqari laaj yooyu da caa bokkoon ci tënk dane ko woon ñun ñoo moom réew mi te ñoo ngi laaj impôt yi ñaa ñett ak trente so ñetti dërëm ak trente so yow nag ngay laaj ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ca joxe nañ bañ ne ku joxewul woon doy na lan moo ko waral Sëriñ Tuuba radiyallaahu anhu ne ko da ngeen moom xotti jëmm yi moom na moom xol yi mu ne ko loolu des na maa leer mu ne ko njaareem gi ay taaxale mu ne ko waaw mu ne ko yéen a moom li ñuy séen ci kaw kër goo jub rek yéen a moom la ngay séen waaye la ca biir nag man maa ko moom mu ne ko kon yaa ñu gën moom mu ne ko fuuf loolu màndargale ci ci fii wax dëgg yàlla joxit wu ànd ak yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma sànni dem ci xare sëñ Fadlu ñoom ñii teew xam nañ ne taarix bu ma sànni dem ci xare jigéen ñi dañ daan dindi seen téqalma yi seen lami takkaay yu foor yi di ko jox yonent bi sallallahu alayhi maanaam bu ñu xoolee ba amul li ñu joxe ama ki jël téléphone mu mel ni mel mu jël ko joxe mooy ne li sëñ bi laaj bi moo ko mënoon a joxe kenn du ci bokk lépp laa joxe doo xol yo xol yooyu moo fi nekk yéene yooyu moo moo fi nekk moo feeñ ci jataay bi kon loolu nag wax di yàlla luy luy bégloo ab murit la képp ku di ab taalibe boo fekkee lu mel noonu soxla dana sedd amaa lu jëm ci eh, sëriñ Abdul Karim ak melokaanam loolu mooy la war a am maanaam nim mel ni la war a mel nim mel ni la war a mel mooy lan mooy kan mooy waajuram mooy Cheikh Ahmadou Fadil Cheikh Mamadou Fadil mu fas yéene fu mu tollu guddi ak bëccëg tànk bu sëriñ Fadilu seqi mu teg ca loolu la fas yéene kon munta am benn couleur budul budul bi mu mel mboolem jikko yu baax yi ñuy wax noonu la war a mel moo war a am maa ngi wax sëñ Fallu Jatra sànq naa ko sama géj fi bu ma sañoon ñëw gi di jege ndax wëllëree dafa yàgg cam jàpp ko téye ko lool cam jàpp ko téye ko daale ji ma yor daara alxuraan moo njëkk a jël doomam sër sëriñ Falil bi fa njëkk a jànge ci moom la mu sëriñ Xaadim Mbàkke mii donc kon loolu lu rëy la ci man waaye lan moo tax tànk yi du jegee mooy ni muy def doxaleen doxalante ak yow saa bu la gisee jàpp ne moom booy dem dala dalaa war a euh, jox lu am solo loolu mooy sama jafe-jafe moo tax sëñ bi tànk yi du du jegee du du suñu xol du fi benn yoon ndax ndax yu bëree bari xam naa kon ci tënk bu gàtt rek ki ko wàll jikkoom yi muy Cheikh Amadou Fadil mi nga xam ne moom ñu tax a daje fii moom la ñuy wax lu néew ci ay jikkoom wax lu néew ci ay waxam ngir ñu mën cee jariñ sëriñ Falilu radiyallahu anhu bokkoon na ci ay jikkoom yoo xam ne ku jaxasoog jëmm ji murid mii dana ci xam dara ndax ku xam jaar-jaar yi sëriñ Abdul Karim dana xam li ñuy bëgg a wax mooy sëriñ Falilu bokkoon na ci jikko yim gën a ràññikoo mooy mën a muñ mën a muñ mu metti lool traverse ay ay ay mbir yu metti nga foncé góorgóorlu dëgër am pas-pas muñ ko kenn déggu la saritoo benn yoon loolu yombul waaye juróom Cheikh Mamadou Fadil tolli na jamono yoo xam ne métti woon na lool taroon na lool métti mënut a weesu lu mat a ba lu mat a waxtaane la metti mënut a weesu waaye juróom toog na tabaski woo xam ne dafa jéeg réytu xarum tabaski Cheikh Mamadou Fadil la woon radiyallahu anhu toog këram amul cin cin takku ca na nam dale woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dal na waaye juróom Cheikh Mamadou Fadil waaye musta saalit kenn mus koo xam ci moom nit jóge na ci ab dëkk fii ngan ngam fa jóge neex lool mu ñëw ne sëriñ Falilu ah fekk sëñ Fallu ginnaaw takkusaan mu tiim laaxub xoñ boo xam ne dañoo tucc tuccal xobi Dakar def ca suukar amu ko mu ne ko am ah, mbàkke lii moom yéeme na li mun ne waaye maa lay xamal ne njëkk lii tus ca mujj lii yaakaaruma tus mooy ndékki yu ma yaakaaruma reer te kenn mosu koo dégg ñaareelu muñ bi mooy lan mooy muñ bu gën a jafe ñaareelu muñ bi mooy muñ bi gën a jafe muñ jafe ñëpp xam nañ waaye muñ ci ci ci bànneex xéewal ñëw nga muñ yombul de bari waa na ko yaakaar ne nangam ñii la mel fekk melu na bu ko jamono ganesee mu daal di soppeeku soppi ay numéroom soppi ay anandoom soppi xaritam soppi léppam moom nag dal na ko xam ne xam ne wax baax baax ñam ñam jàppoon démb ak bërki démb lii muy def nii sëñ Fallou Diatra ngi fi wutuñu fi jamono ju nekk bu jëlee kàddu mu doy sëñ Touba Seen bu jëlee kàddu mu doy waaye jox jim lay jox kàddu da won ne la la woon démb ba léegi moom laa jàpp loolu yombul mbokk yi bari waa na koo xam ne bu jamonoom sotti ko mu daal di sotti ko fa Fallilou nag bi jamonoom sotti ko mu nekk xalifa général des rek xéewal yëpp yi ñëw dafa woo Baye Sëñ Bousso Sufóor Baye Sëñ Bousso Ilmaan ba mu ñëw mu ne ko Sëñ Bousso nañ waat nañ mel ne dañ doon gas ab teen ca fekk dañoo yendoo koor dem ba jant bi so teen bi bënn lu ndox mi wal wal wal wal buñ dog suñ koor muy lu ñu àdduna wël ba wuti wuti wuti ñun buñ soppi doxin loolu yombul mbokk yi loolu yombul ci jikko Cheikh Amadou Fadel la bokk na jikko sëriñ Fallou rod yàlla nu tabe jikko ji may wax fii rek ku ne ci yéen da koy mën a jàng ci moom tabe sëriñ Fallou dana wax da daan da a joxe daan wax ne ab joxe fi muy jugee bu fi dara fa mu jëm du fa jariñ dara fi muy jugee ab joxe fi muy jugee bu dee wàññiwu fa dara fa mu jëm du fa jariñ dara loolu mooy kii joxe dëgg-dëgg joxe joxe bu wér a wér bokk na jikko Cheikh Amadou Fadal sàmm kóllëre sëriñ Fallou ku mas a gis da da lay jël ba tam dalay jël wala rey démb ak barki démb lay jàpp ci yow loolu yombul rawatina jamono ji ñu toll bokk na ci ko Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu wàcce boppam wàcce boppam ba ñëpp a jot ci moom sëriñ Falilu ca xam-xam ba sëriñ Falilu ca wilaya ga sëriñ Falilu ca doomi sëriñ Touba ja nekk xalif général des mourides bu doonoon loolu la loolu lay dund ñiy ci moom danañ jafe lool ñu néewee mën a jot ci moom waaye wàcce dara jaam wàcce boppam suufeel boppam ba ñëpp mën a jot ci moom mu mën a jariñ ñëpp bokk na jikko Cheikh Amadou kon ay jikko yooyu mbokk yi bay ca tege mooy yërmande bari yërmande sama wajur moom nett nee na julli nañ fi julli iid ba noppi sëriñ Fali radiyallahu wax ne maa ngi leen xamal ne ni ma dencale jaam ñu yërmande mi ngi mel ni ki ginaaru jaboot gu buut gu uuf ay coo cuujam benn cuuj feddi na di for ab caali seen ko di ko bëgg a këf nee na ginaar gi buy wàll ji cuuj ba ne muy yéenee mu mucc nu ko raw laa yërëme jaam ñëpp loolu moo waraloon bëggul woon sax gis ko moom dàq nañu sàcc Madina mbooba dàqu sàcc ba mu ba mu ne baraas ci pénc bi suñ fa ne loolu leen waaye ñu ne ko ah, Mbàkke daa daa daa daa jël yëfi jàmbur mu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu ne ko Mbàkke dafa sàcc mu ne man sama bët yii moo mënut a gis ku ñu bugal sama bët yii moo mun a gis ku ñu bugal moo waraloon bu ma saan gis nit pour jël ay picc sax def ko ci ak kaaf bu ko rombee ñu bari noonu lañ daan def boo bëggee jaral rombal sëriñ Falilu rek sa picc sa kaaf fees dell ci picc maanaam picc yi ak libéré leen ci tubaranke gi ñu nekk day jënd lépp bàyyi leen ñu ñu leen kon loolu ak yëg-yëg yi xol la joo xam ne mbokk yi kum doon ci ñun ñi nga xam ne sëriñ sëriñ Fadil radiyallahu anhu mooy suñu jëwriñ di suñu sëriñ di suñu lépp war na ci ñun ñu ci mu jéem a feeñ ci ñun ci jéem góorgóorlu luñu man jikko yooyu bi ñu ko doon topp ba ba muy jeex jikko yu baax yépp mi ngi ci moom kon loolu buñ di sëriñ Abdul Karim melee noonu roy waajuram ba loolu mooy li war a am mooy li war am te ñun ñëpp jikko yi ñuy wax ma ne sa ko ci moom lenn rek laa jeexale mbokk yi ngir bañ a guddal mooy lenn ci waxam yi waxam yi mu daan wax muy wax yu jàngale wax yu am so yu am solo yu am xorom yéen ñi daan nekk yu reelu waaye nekk yoo xam ne ay bind la ci jublu ay bind. nit ñëw na ci moom ne ko man de Mbàkke sama kër daal dafa xaw a jàmbat ko këram sëñ Fall na ko bindal kër mu bind mu ne ko bindaat ko mu bind mu ne ko looloo yor kër kër moom kër kër moo ko yor waaye toog yorub nit ñëw na ci moom ne ko man de Mbàkke damaa bëgg nga ñaanam ndax gimiñu nit def maa jàpp. sëñ Fall ne ko danga ngaa deful da dara rek waaye boo doon def gimiñ nga nga def ci dara dañ lay ñaanal waaye kenn lu gimiñ waaw dañ lay ñaanal waaye kenn lu gimiñ bokk na ci waxam yooyu radiyallahu anhu nee na woon nit da nga naan ko nit téye koo bëgg a saxal koo bëgg a yàggal da nga naan ko nit téye waaye nit nit kenn du ko cof ndax as gor xajut cati baaram koo cof mu wadd as gor xajut cati baaram koo cof mu wadd bokk na ci njàngaleem yooyu nee na jigéen ku ko munta muñ na nga koy muñal booba nit doon jàmbat soxnaam mu ne ko maa ngi lay xamal ne jigéen du taxaw jub xoj faw mu wéeru ci yow dara kon nangul mu wéeru ci yow yow mi borom këram nangul mu wéeru ci yow yow mi borom këram bokk na ci njàngale ma yor delan nee na woon ak ndawal ak ndawal jërtu xër xam naa mbokk njóobeen duñ d'accord ci loolu nee na ak ndawal moom jërtu xër ndax saa boo ko gisee rek bakkan na ak ndawal nee na jërtu xër ndax saa boo ko gisee rek tiimee rek xamal ne bakkan rot na bokk na ci njàngale ma radiyallahu anhu kum doon kum doon fomp loo fidal ba ci yàgg catu fidal ga wuti sëñ Fallilu sëñ Fallilu ko jëmale ko neewaay mu ne ko mbàkke dara néew ji mu ne kon de jëmale ko fi dara néewut ginnaaw dara néew ji jëmale ko fi dara néewut maanaam xakim la woon goo xam ne léppam am njàngale nit ñëw ne ci moom mu ne ko ne ku wéré di woon sëñ Fall ne ko na nga def mu ne ko mbàkke maa ngi fi las las li mu déedéet waay da nga maa ngi ñot ñoti ndax nga ne ñokket booy las las da nga naan laseet kat neel ñot ñot ndax nga ne ñokket xoola dégg wolof bi ak mbir yi ni mu ko ni mu ko jegee nga xam ne kon bokk yi kooku mooy Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu nga xam ne ku ko xam da ko bëgg lii ko lii ko daleen mënu woon a ñàkk sama waajur moom net neen dañoo toog ci jotaay ba ci yàgg nee na sëñ Baye mën jaay binte ma nga foon sëñ Modou Xabaan ma nga foon nee na sëñ Fallu toog ci pilaan yi ba ci yàgg mu jub daal di dugg ci biir néeg bi nee na bi mu génnee fekk bi mu duggee rek sëñ Modou Xabaan nee na nañ ko jëw balaa ñëw waaye waaye sëñ Fallu mënuñoo wax ci moom yëreem yu bokkul yi muy sol koo xam ne àdduna bépp ngi ñëw ci muy sol yëre yi dara bokkut ak morom ma nii nee na mu bi mu accès daal di jàpp sikkim si mur xabar ne ko waaye borom sikkim si loo wax waaye mu ne ko ah man Mbàkke lu may wax mu ne ko ah kay dégg naa la da ngaa bëgg lan may xëy xëylu lu jigéen du ko def waaye li ma koy wuutee mooy damay xew ci dootuma xew ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu